Euh, salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal TV dal leen a jàmm seen biir émission nekku nu jigéen tey nag nekku nu jigéen dafa ñëw si beneen thème mooy lan jonge ma nekk invité si sama biir plateau benn xale boo xam ne ah man mii sax dama mujj jonge sax si saa si maman maa ngi lay dalal. waaw waaw man nag ci jonge nee la ku ma bokkal plateau ku nekk rek doo ko rëccu ndax man nag ci xale. ah man de macha allah ma rëccu ma ko. may nuyu chez uh-huh. internet am bu baax a di nekk ak yéen seen émission nekk ñu a loolu dina ma neex dina ma neex ni nga dugg see saf na ma neex na ma trop ah. ni ma dugg see ak sa tag lu baax ma macha allah maman euh, nekk ñu jigéen nag ñii la koy defee saa su nekk maman nag tey ñu indi benn tam mooy lan jóge loo xam ne dafa nekk actualité bi nga war a waxtaan ak suñu mbokk euh, internet Sénégal TV nga war leen wax lan mooy jonge maman lan mooy jonge ah cuumal loolu dama ciy sawar di leeral chaîne internet yu Sénégal TV bi jonge mhm. parce que dama yaakaar ni jonge uh-huh. lu ci jigéen dong la jokk ci xale jigéen dégg loolu jonge uh-huh. uh-huh. mag ndaw góor ci ñooñ la jekk mag ndaw góor léegi mag ndaw góor léegi ma de maa la dégg

li may ah. na ñoo xam la sàppali bul fàtte benn yoon la la war a sàppali ah, ah. te moom mama lan Mau ko war jigéen da ngaa war a xajam. xajam mooy bu demee taxaw nii nu mu rafetee nu mu bëree. macha allah macha allah déggoo ma ne jigéen noonu la waree waaw maman ñëwal ma si ruqruqaan jigéen. waaw jigéen da war a xajam bëri ay affaire bëri bagage. dëgg la déggoo ma de. dégg naa bu baax. bëri bagage du tax nag ñu naan fer. potu cuuraay ak li nga xamante ne moo di sërinoo ci eh, déedéet man loolu dama koo contour loo jigéen ci ay geste sa danga cee war a jóge man lii laa wax déggal loolu maman geste si ban côté parce que man sa jaagat jaagat sa dugg si bee sànq man waaw man naa la man rek ci xale moo tax na damaa contour xale jigéen yi nga xamante ne mhm. ah mhm. ñu bàyyi ba am jëkkër di jonge déedéet man aw ma jëkkër maanaam maanaam loo tali daal loo jàngul daal mënoo ko tari daal yow loolu nga bëgg a wax daal ah boobu man nag sama mbokk internet Sénégal TV ñoo ko gisandoo tey nag xale jonge laa fi invité de ma maanaam man la bëgg nga ñëwal ma ci affaire yi euh, jonge ñëwal loo bëgg a wax foofu dama lay laaj yow ba ma nee tëll rek sa biir plateau ma de man dama nërmeelu man xam naa bu yàgg gis nga gis nga xale jigéen yi nekkul ni rek da ngay ba am jëkkër di suul say yëre déedéet. ah bon war a def say yére cuuraay yu baax. pour maman maman maman attention a waxante suñu ñëwaatee suñu maam yi nag dañu ne sooy suulu doo am jëkkër da ub. déedéet man loolu dama ko kontul. ah bon maam yu njëkk yooyu ñoom dañ ko daan def. ah waaw. même soo amul jëkkër sax mën nga ko def amul jëkkër. yow ba ngay ñëw da nga ko def ba ngay ñëw da nga ko de. yow tamit allah lu may sant fii man kese maa ko xam ah yéen nag ñoo ko internet Sénégal TV ñoo ko gisandoo maman nga continué. waaw ma ne man uh-huh. damay def ko bu baax. Uh-huh. bien vrai que aw ma jëkkër ah. mais balaa may génn damay. ba mu na ba mu baax doom lay damaa xam ku may tasal ci yoon bi doom lay. suma xaalis yi na Macky Sall tey jii su ne ma bëgguma problème ak Marième Faye Sall. kii nag na yem place am bëgguma problème. affaire jonge la ñuy wax. waaw Marième ko ñu ngi koy ñu ngi bëggee bu baax a baax nag ci cuuraay ji mi cuuraayal suñu kii bi nga xamante ne moom lañu bëgg jigéen di jonge. damaa bëgg man da bëggoon nga ñëwal ma ci xeetu ci xeetu feem yoo xam ne jigéen ñi war nañ ko utiliser. Euh, pour jonge jigéen daal lenn laa xam. pour bay ba guddi rek nga naan damaa war a ci kaw lal ba ah déedéet. ah nga koy commencé da am def. sama mbokk internet nee leen ko bu ma sorko sorko na def naa ko rek te naa ko méttiwul jànk de. waaw man ko méttiwul man dama bëgg nga commencé fi nga commencé mooy lan ndékki ba. ak ma ci sawar. ba man ci lu tax nga indi ma fi. rek. man man dama am fit sax di di di wax si mbirum jonge. waaw waaw ma ci ndékki ba gis nga nit. sa bëgg heure bu saxal li nekk ci moom. waaw am nay. sa loxo ma wax la. bëgg bu yeewoo nga sang ko ba mu set. koy sang sa jëkkër. man xam naa bu mu tombeeg seddaay nag. man xam naa xam naa balaa bi ba mu nii. Ah, koy diw luñ koy diw noonu. massage xoolal amul suba teel boobu. waaye jigéen nag dañ ko tayal de xam nga loolu. mais moo tax mi ngi noonu nag. Ah. jigéen waroo tayal. ma lay wax. loolu yëpp si xeetu feeñ la ah d'accord. te yaakaar naa ne ku ci jël leçon ku ne doo ko rëcc. macha allah ci xale. macha allah mën na nekk léegi ñëwaatal. bis ko dugalee ci douche ba sang ko. Uh-huh. ma de. ah maa ngi dégg ah. yaa ngi lay ci internet ba tax uh-huh. uh-huh. ba léegi yaa ngi dafa bëgg ku koy arrosé. ndeysaan te góor tamit loolu la bëgg. dañ koy arrosé. waaw wow bu la neexee bu la neexee soo paree solal ko sa yére bu baax muy féexlu le temps ngay dem defari néeg bi defal ko petit déjeuner au lit loolu lu may namm. dara su paree nga solal ko yére bu baax maman rien du tout lu gars yi naan rien ah. du tout nothing dara la dul namm. boo paree nga defal ko yére bu baax mu sol. Ah. xool ko caravane solal ko kawas déggoo ma de peñal ko bopp bi ba mu mokk. Ah, mama mama mama kooku day dem liggéeyi ji. déggoo ma de nga accompagner ko ba ci buntu kër gi déggoo ma de. Ah. may ko bis bu baax balaa muy yegg fu mu jëm nga yónnee ko message boo xam ne bu ko gisee day kat kat. man xaw ma ndax yéen mais man maa ngi dee sama biir plateau mama. lii la ah moom lii la wax de mbokk internet Sénégal TV ñëwal mama. lii la continuer waaw. Uh-huh. ba tax na nag balaa muy ñëw yaakaar naa ne buy ñëw sax heure ndekki bi mu ndekki woon du passé mu egsiwaat ci biir. mu duggaat ci biir kër gi. waaw kooku du liggéey ji. mané ne lan liggéey mais day and ak sa gom. ah bo bu baakha baax. mën na nek ba léegi fi ma koy téré rek. amna ño xamné dañ nan duñu and ànd ak seen sago mais ki day and ak sa ndax lepp lo koy defal temp waaye mama mama jongi bu upp ci gor baaxul. mais ba tay baxna mo mo la jëlé kër ak kër indi la ci biir këram. Ah, la war ci wa d'accord ba léegi bu la nexé léegi suñu waté ci biir kër gi moy ban heure. waaw bala heure añ. ah bala heure añ. Ah. manam du dem lek ci restaurant ci bi kër gi rek. ko mayal ko sa suufees bu baax simbi ko. taal ko ventilo bi muy ëpp ngelaw di ko jaar fu ne déggoo man. man man moom <laughs> amatuma wax. dégg ma ba ko ca néeg ba dem ca waañ ba balaa ngay taal añ defaral ma ko ataaya bu foor bu ko defee léeg sax muy jaaban ci waañ bi di la wéttali. maanaam yaa ngi yaa ngi ci mbirum mbirum toggum añ bi. toggum añ bi ba boo ko bàyyee ci néeg bi moom kasi day wéet. ndeysaan mën nga koo defal benn dosam bu baax. ay waaw nga sànni ko nunu subi. mën na nekk mën na nekk mu wékkali ko moom nee na théâtre ma Mandoumbem waxoon na ma ko boo gannaaw nee na ma Mandoumbem beneen sens la. waaw ma lii laa wax bu la neexee. lii laa wax li moom lii la wax de. wala léegi taa ñu aññi nu muy demee maman. waaye yow ma fas yéene ko toggal ceeb bu amul seen. lu bëgg lu nekk loolu laa koy defal. moom la koy defal jigéen moom. Uh-huh. du ci biir lal ba donc comme la ko waxee sànq togg dañ cee war a joŋee. déggoo ma de jus sax boo koy jox dafa am façon yoo koy. maman jox ma jus ci jox ma jus déggoo ma de loolu yaakaar naa lépp lu bëgg a leer ci internet du Sénégal TV dina leer nañ. Uh-huh. lii laa moom lii la wax maman ba léegi yaa ngi ci añ bi maman ñëwal. waaw def sama añ bu baax sa taajum añ. ma paree génn. Uh-huh. daal di def sama tay baas bu baax def wax ma la tay baas de sama tim taat laa la ah maman taat mooy ban. tintaab boo xam ne dañuy jël pot xoolal dañuy jël fii rek balaa ko moom fees dell. maman bi nga sol xanaa mooy boobu. bii ah cum xam nga ne yii nii. simple la rek yii du ko ah, simple nii. waaw ah. d' accord mun na nekk. Euh, ba tey ba euh, tey liñ ma joxoon euh, maman nag franchement parler sama xol mu ngi metti ndax émission bi ñu ngi may signalé ne ah, temps bu ñu joxoon jeex na ah waaw ba beneen yoon noonu dañuy ñëwaat ah, ah ci lii rek lii jël li à suivre la de ah, jeexagul ah, nuy la fiy demee nag mbokk internet Sénégal TV ñu ngi woon seen émission nekk nu jigéen ci thème boo xam ne jonge lañ doon waxtaane ma dalaloon fi nag sama invité mooy mama xale jonge mama ak sa dernier kàddu waaw man lenn rek laay wax muy xale jigéen ñi xale góor ñëpp laa ci yemale ah mhm. jonge leen parce que jonge dafa bokk ci loo xamante ne day dundal nit dëgg la gis fleur yi ni ñu muy neex ci xolam noonu nga war a arrosé sa jëkkër ba mu sax sa xol. dëgg la de ba tax na nag yéen chez internet Sénégal TV jigéen na góor mag a ndaw yéen laay waxal jonge leen ndax dafa xew. ma leen di jox dig daje ba beneen yoon ci beneen boo ma invité waatee ma indil la yeneen paquet yu amul benn problème pour yow rek pour neex na kay ba noppi waaw nag ñu dalaloon fii koo koy xale jonge maman maa ngi lay remercier bu baax a baax si sa teewaay fii nii suñu bi plateau euh, mbokk internet Sénégal TV nag euh, mu ngi noonu jonge lañ doon waxtaanee di leen jox dig daje nag ba beneen yoon ñuy baalu àq nag si kàddu yoo xam ne euh, safaanoo fi fi yu fi jub nag yàlla sopp ko xéewal sotti ko si askanu sunu gaal di leen jox dig daje nag ba beneen yoon balaa loolu nag damay remercier suñu caméraman bii ñaawul bi moom nag dee na ci plate émission bi sonn na ak euh, suñu assistant bi euh, di Fatou Diouf euh, ak fu yaani fii nag fu ñu nekk Korkasen moo ko moom ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko remercier trop trop trop ci disponibilité am di lañ jox nag di jajee ba beneen yoon à